yaa qawmi innama hazihi hayatu dunia mataun wa ina al axirata hiya daaru lqaraar man amila sayiatan fala yujza ila misluha wa man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa muminun fooleeg yadxuluna aljanna yurzaxuna fiha bi xayri isa yàlla nee na yéen nit ñi àdduna kër guy jeex la alaxira mooy këru saxukaay. Mhm. yéen a ngi ci ku fi def lu bon lu bon la nga doon def la la yàllay delloo waaye ku ci def lu baax nag yaa xam ngay góor wala ngay jigéen fekk nga gëm yàlla yàlla ne dana la tabal àjjana kon di jëf lu baax góor ak jigéen la ko yàlla santaane woon. Mhm. bu demee ci suratul azab daan dégg yàlla boole jëf yu baax yi. jigéen warta seetaan góor rek mu di ko jëf fu ci góor rek jigéen war na cee toll inna al muslimin wal muslimat wal muminin wal muminat wal xaanitin wal xaanitat والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكر الله كثيرا وذاكرات أعد له مغفرة وأجرا عظيما Cheikh Ablaye hmm. foofu yàlla martaba bu mu jox góor rek jox na ko jigéen dëgg la jullit yu góor yi jullit yu jigéen yi ñi gëm yàlla tey góor ñi gëm yàlla tey jigéen hmm. baax bu góor di dox jigéen war na war naa dox baam mbaax googu mooy dëggu ga xanaa xamoon ne weer wi nu nekk moo tax boo tax yàlla dugal na ci wasaayimiina wasaayimaat loolu li muy tekki hmm. mooy jaamu yàlla yi ñëpp nañ ci bokk góorgóorlu ndax it yàlla bi mu naan nan ma jaamu tuddul góor tuddul jigéen ñëpp la boole tudd yaay wa naas ubudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaquun yéen nit ñi la wax jaamu leen seen borom mu mel ne jigéen ñi am nañu kilifa mooy seen njiit moo gën ci jigéen ñi mhm. sayidatuna mariama la tudd wa is qaalat al malaikatu ya mariam inna laa safaki wa taaraki wa safaki ala nisaa il alamin yaa Mariam uxnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'iin yow Mariama ah, yàlla tànn na la yàlla jiital na la yàlla gënal na la ci jigéenu àdduna bi Mariama li nga jàppoon baam lii bu ko bàyyi jik na la saxal rek ca na nga doon def dëddu àdduna foo toll yaa ngi rukkoo foo yaa ngi sujjoor sa xol bi sell lool yow Mariama Mariama moo mu joxoon bopp boppam yàlla ak jëmmam lépp yitte wowul dara ci àdduna lu dul yàlla waaye li ci yéeme am solo mooy jigéen ci joxoon boppam yàlla ba yàlla teg ko ci alxuraan muy Sayyidatuna Mariama xëy na bis yàlla ne ko dama lay bégal jigéen lan lañ koy bégalee ndax boytu or lañ koy béggale ndax appartement lañ koy bégalee ndax jasineer lañ koy bégalee ndax bien màkk lañ koy bégalee déedéet xoolal jigéen jooju bi ko yàlla ne dinaa la bégal lan la ko bégalee wa is xaalatil malaykatu ya maryam inna laa yubasiruki bi kalimatin min ismu masih isa bnu maryama wa jian fi dunya wal axira wa min al muqarrabin yow maryama sa borom daf lay bégal waaye doom ji siiw la doom ju jege yàlla la lay bégalee. doom ju baax la lay doom joo xam ne ab yonent la lay bégalee muy sayidina isa alayhi salaam moom la yàlla bégalee sayidatuna mariama alayha salaam moomu ndax baax gan njub ga ak wéetal yàlla moom sayidatuna mariama sëriñ Amidou wax nga wax am solo mariama mi alxuraan doon jàngale ak Mariama mii ci Porokhane photo d'identité bu ñu copier la. Mhm. moo tax sëñ Moussa Kane ba muy décidé feeñaat tey ram wa def faw ndaw soxna jaare bu géeyoon kon fi tey dund beew. yaram kon mbindee fi tey dund beew. maam jaara lil fi wal junne aw fen maale kenn manu ko xam. ba muy dal si feeñaat yaramu wa defu wa undaw soxna jaara bu deeyoon kon mbindeef yi soxna jaara sa jeegi adduna man jaara gën a aw benn masula julli te jàppul masula julli doora xay sangam tuubal dal war këram buubal te jàppul moom te wérdul doora xay sangam tuubal baaras di waxtaan nan sa kaw yaa taxin masul weenam diiwaan di waataani nan sa kaw sara soxna jaara bu soobee yàlla may ab tubaab bu soxlaa sax sañ a jaar si bee kaanam bu soobee yàlla may yere kaanam ab tubaab bu soxlaa jóg sañ na war ji bee kaanam jam sa ir la jam baatin moo waral mu diw xaadam ku sopp Cheikh Anta Mbacké jam sayir la jam baatin moo waral mu xaadam jam baatin moo waral jam sayir la xaadam sëriñ Saadibu Turi demal moom solo soxna maam Mariama bu sa jariyatulaa yi ki wa ki jaar ci moom ku mu jaar ci yow dañ lay waajal lan moo waral loolu ki jaar ci moom ku mu jaar ci yow dañ lay waajal jar ci moom mooy Ahmadul Xadim Ahmadul Xadim moo nu wax ne ca yàlla laa nekkoon rasulullah moo ñëw ca yàlla waxtaan ak yàlla sàkku sama jëmm ji mu ñëw àdduna loolu la sëñ Bamba bind raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimuhu wa abdullahi bu ma rasulullahi sàkkul woon ca yàlla du ma ñëw ala lasi talaba kaw ni al xadim law salaama zil bariyati al xadim alquranul mi sax moo dem ba ca yàlla waxtaan ak moom na ko boole maag sëñ na ma téye te bu ma ba raamal kitaabu kawnu ma yi bila tafaruqin wa umri xatxu bila ku tedd kooku ku baax kooku ku mu nar a jaar ci yow dañ lay waajal loolu moo waral soxna jaariyatulaay maam jaara walaay waajuram a ko jàngal soxna sowaalo naawal moo ko jàngal alxuraan te wal bala yuxriju nabaatu bis li wala si xabusa laa yuxriju laa nakida suuf su sell gàncax gu sell lay génnee waaye suuf su lëndëm gàncax gu lëndëm lay génnee teel naa mokkal alxuraan lool xattan wa tilaawatan teel a jàng téere xam-xam yi yamul woon ci jàng day jàng ci daara ji ba yàgg wajuram jox ko daara ji mu jàngal mu jàngale loolu rekk mbir la mokkal alxuraan xaytan wa tilaawatan jëfe li alxuraan digé digle di ko ba noppi bokk ci di jàngale waaye keroog bi sëriñ Moor dikkee ca kër ga ànd ak Njaay te Soxna Anta Ndiaye moo moo moo yëgal Serigne Mor ne ko soxna Sowaalo sunu ma ku baax ma am na jigéen joo xam ne nii day ku ko jël yàlla mën na la caa jox doom ju baax keroog ba ñu laajee soxna Mariam bu sa jaaree tulaa yi te am na ku lay seet si te góor la te laa bëgg ànd ak yow jaamu yàlla nan déglu kàddu gam waxoon laajul alal laajul wurus laajul or laajul dara dane ki ñëw di seet si ngir bëgg naan de jaamu yàlla ndax mokkal na alxuraan ñu ne ko mokkal na ko ba da koy jàngale mu na bismillah kon kooku ci yàlla rek la doon dox soxna Mariama ma sa jaaree tulaay naan bàyyi xel ba mu yegsee ca kër ga ba ko soxnaante Njaay laajee laaj bu rëy ba wala bala moo yegg sa kër ga ngir dem ca kër ga ni ñu def jigéen ñi kenn defu ko soxna jaara teg la ci bëtt muur di wax nday di wax maam di wax dëkkandoo yi di wax defuñu ko soxna jaar yi moom ban ko tegee ca di ko waajal mu war a dem kër sëriñam kaamil alxuraan rek la ko soxna su la jox waate sa digganteeg yàlla ci ak ci téere bii boo demee la nga fay liggéey lan lan nga fa nar a liggéey soxla seeni jàng di waat ba yegg ci maa kaana muhammadin aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi xaatimi nabiina rongo ña sotteeku mu yëkkat jooy soxna su wàllu xëcc kaamil bi ne ko looy jooy mu ne ko alxuraan ma jooy loo yàlla moo wax ci alxuraan ni Seydina Mohamed mottali na yonent yi ab yonent dootul am su fekkoon am na benn yonent bu des boo war a gane àdduna man mii maa ko jur maa ka aminatu yaay rasulullahi sunu bokkoon kër du jur Muhammad di ma ba bu dee mbaax ak tedd ak ngor ak gore ak bokk fu baax ak bëgg lu baax loolu aminatu gënuma ko def sunu bokkoon kër du jur Seydina Muhammad kon may jur Seydina Muhammad pas-pas ba looloo waral bi mu wàcc see ci kër gi soxna Anta Njaay laaj ko laaj bu rëy loo fi naraam mu ne ko yow fi jiitu te baax lool te gore te yaatu Soxna Anta Njaay mooy waajur Seex Anta borom Daaru Salaam mooy waajur Sëñ Afiya Mbakke Ilimaan wala am na fa jant ak weer loolu la waxoon dana woon jaara dinaa fi jant ak weer ko boo jant ak weer maam fi asamaan soxna jaariyatu laay maam jaara jaamu yàlla ga dëkku ga liggéey bu rëy ba bari na lu ñuy tudd sàkket wa waaraat ci waxtaankat yi sàkket wi rek buñ ko tuddee jigéen ñi dañ cay yéemu téye sàkket fanaa ne ko